señ bi nan nga xamé Salif. wax deug yalla Salif de mom du moom laa xamoon yaayam laa xamoon yaayam kat encore lu tax ma xam ko sam ben pap bu ndaw mom fi indi won du man sax nekul man mi ma taxone jog sam pap bo mo taxone jog bu mu ñew ci yaayam yaayam defal ko bam paré pare pap mu ne ma kon togal ñu defal la ben yoon mané ko non man yaakar na ni awma ay sax mu ma ku laa loolu rek da génne sax fal force benn jour yaay mu def ma génne ma ay sax députat boobu man pare eena eena laa fi ñëwaat Dakar laa liggéeyee ma ne ginnaaw ñoo na ba fii sa nopp tasu dee continuer ne balaa ma delluwaat Dakar il fi kii sama soxna la kii mu fii la dëkk kër gi fan la woon mun moom na fi mooy indiwaat ma fi mun yaay jëm daa gaañu léegi doom ji moo fi nekk loolu moo tax ma ñëwaat fi bis bi tey noppi doon na xasan ba mu doon xasan nag sama pap bu ndaw ba moom fi bu bari bu baax sax loo moo tax ba mu ñëwaatee ren ma ne ngoor balaa ma delluwaat Dakar il faut ma yëssaale fi parce que dung rek laa yor wax dëgg yàlla noppi di xasan rek ma nekk di continuer jurgal rek ma ne ginnaaw noonu la ginnaaw ñëw naa ba fii balaa ma delluwaat Dakar yëssaale fi benn yoon loolu moo ma fi indiwaat bis bi tey. am nga ci yaakaar. waaw am naa ci yaakaar et gis naa tan bi parce que. geneen na ci am nañ ci ñu mën ci jëti genn genn na ci ñu mën toll six yax waaw loolu moom wax dëgg yàlla ku ci amuloon sa nopp doo ci mën a génn maa ngi jóge nag ba Waasaakodde sama gor nag ñoo fi nekk dama ñëwoon pour nuyu yàlla sama goro yi ma ne balaa may sawaas ñu mën sama kër goro may sawaale fi benn yoon ginnaaw ba mu fi jógee incha allah pour ma ñëwaat fii du gaaw tabas ba tabas laa tax moo ñëw fi pour jël julli tabaski ma ne balaa ma delluwaat may sawaale fi benn yoon loolu moom ma fi indi woon